sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk julli di daru dir wal irshad mu ngi delsi wat ak yeen ci jotayam bi nga xamanteni mom lañuy wowe waja ramadan dars bi ñu genné gis ngeen ñu doon wax ci ana nan lañuy wajalé koor waye tay ñu ngi ñew ci biir wajal bi buntu bu ñuy wowe tuup dafa bokk ci bunt yi gën a mag ci ni ñuy préparer koor bunt yi gën a rëy ci ni ñuy waajale koor bokk na ci mbokk ñu waajale ko góor-góorlu ci santaane yàlla yi taala wa tabarak sunu bëggee mbokk sunu koor nekk lu yàlla gërëm sunuy jëmm nekk lu sell sunuy xel nekk lu yiw il faut ñu jéem waajale koor gi dellu ci yàlla waaye delloo sunuy bàkkaar fas yéene tuub ndax gan gi ñëw muy nekk intilaqan wala mu nekk départ ci pour ñu dem ajjana yàlla nañ ko yàlla defal ñu dajeeg yonante bi sallallahu alayhi wa kon dafay war ci ñun fu ñu tollu ñuy yokk suñu yiw waaye di moytu lépp loo xamante ni ay sabab la ci lu ñuy indil ay bàkkaar kon mbokk dañoo war tuub ci suñuy bàkkaar waaye tàmbalee ko ci weeru shaabaan bi ñu nekk moo xam bàkkaar yu mag yàlla nañ ci yàlla musal waaye bàkkaar yu ndaw ñu góorgóorlu ba lépp lu doon sabab bàkkaar ñu moytu ko lu mel ni tux ki doon tux na fas yéene tuub bàyyi sigaret jigéen bi doon tabarruj di band baraj di sol yére yu sexy di charme góor ñi walla di leen provoquer wàllu col googu na ko bàyyi ndax borom bi da ko tere waaye bu dee borom kër walla xale bu góor bokk na ci moytu nag li ñuy woowee alkasbul xaram di fàggu alal ci fàggu win bu dagan këf alalu jàmbur tiryande jàmbur rawatina nag nga jëm ci li ñuy woowee carte ay wan exhibit walla wala Lonase wala yu niiru loolu jullit bi na ko moytu xale yu góor yi nañu moytu jeu yi ñuy def ci football yi di ci gane ay xaalis ndax yooyu da leen di yóbbu rek ci lu xaraam te borom bi da ko xaraamal waaye ñu góorgóorlu bay xool yu xaraam ñu moytu ko waaye góor góorgóorlu nag ay saaga jëf yu ñaaw ñu moytu ko ndax borom bi taala wa tabaarak da ko tere kon mbokk yi dañoo war a wëlbatiku suñuy doxalin changer suñuy comportement xeex ak suñuy bakkan xeex ak suñuy jëf ñu bañ a jël suñu bakkan tënk ko buum jox ko iblis alayhi laanatullah waaye ñu góorgóorlu ba suñu bànneexi bakkan ñu moytu ko ci bëgg alal ba mën ñoo yóbbu ci lu xaraam yàlla subhaanahu wa taala daf ñuy wax ne baada audu billahi min alcheytaani arrajim inna allaha laa yugayiru ma bi qawm xatta yugayiru ma bi anfusihim yàlla subhaanahu wa taala du soppil aw nit li na ci ñoom lu dul ñu soppil seen bopp kon bokk na ci ni ngay soppee sa ma bopp góor góorlu tuub nga bañ a xeet benn bakkaar waaye nga bañ a xool ayibi jàmbur nga bañ a xool sikkus jàmbur waaye sa sikk rekk na la doy moo tax bokk na ci jullit bu wër dëgg-dëgg te baax mooy ki ay bàkkaaram doy wulis bàkkaaru jàmbur waaye mu jéem ci tuub mbokk yi bokk na ci it nag nga góor góorlu ba lépp loo nekkoon donte jigen la bo xamni ne sa coro la won nga don ko gis di sekk ak mom yenn te leer na len xam nga ni buntu la buy indi buntu bakkar soko mene moytu nga moytu ko waaye ñu moytu ci li ñuy wowe reuy ñu moytu ci li ñuy wowe wax lu dul deug borom bi taala wa tabarak ne يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة nasuha أي yéen ñi gëm tuub leen jëm ci seen boroom waaye ngeen tuub tuub gu sell tuub bu baax tuub goo xam ne yàlla da koy gërëm na ngeen xam ni tuub mbokk yàlla da koo santaane boroom bi ne wastaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi tuub leen ci seen boroom ngeen jéggulu ko waaye ngeen tuub jëm ci moom yàlla subhaanahu wa nee na ñi dul tuub moom mooy tooñkat yi wa man lam yatub fa ulaika humu moom kon mbokk jullit soo bëggee yàlla jéggal la soo bëggee sa koor rafet ndax kat koor gi ngay waajal xamoo ndax danga ca àgg su koor gi ñëwee xamoo ndax danga ko jeexal kon su boobaa war nga cee defaru waxtu nekk nga xamante ne bu yàlla dogaloon sa bakkan rot ca yow dangay bokk ci ñuy texe da ngay bokk ci ñuy dem àjjana borom bi nee na illa alladina taabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana tawaabu rahim kon ñiy tuub borom bi di leen di jéggal yàlla yàlla jéggal ñu suñu bàkkaar ñu góorgóorlu nag ba soo bëggee mbokk yàlla bëgg la del saxoo tuub del saxoo laab borom bi nee na inna allaha yuhibbu tawaabin wa yuhibbu almutatahirin yàlla day dafa bëgg tuubkat yi waye dafa bëgg ñi laab laab lu mbokk yi kon ndaw ñi maa ngi leen di woo ñu yeesal bunti tuub bokk na ci it nag lu ci tuub foo toll di bëril di wax foo toll laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min alzalimin loolu jéggalu yàlla la bu mag boo xamee ne moom la yunus waxoon borom bi jéggal ko yonent bi tuddé ko ñaanu yunus lu ci way ñaan yàlla yàlla mën na ko defal waye benen bi bokk na ci siyax yi ñuy tuubé astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilay ma waxat ko astaghfirullah alazim alladhi لا ilaha illa هو الحي القيوم wa إليه ديل بري ديكو واخ واي ديل بري دي واخ استغفر الله waye nak del bëril di jàng sayyidul istighfar man nga ko jàng ci sa julli ci say ruku ci say sujud ñaan yep man nga ko def ci say sujud te mom moy allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika ma a'udhu bika min sharri ma sanaat abuu laka bi ni'matika alayya wa abuu bi dambi faghfir lii fa innahu la yaxfiru dunuba illa ant wallahi tey fi ma doon vidé suma oto benn xale bu góor daf may xool ba ci àgg daw ñëw nuyu ma ñaanal ma bu baax ne ma oustaz dama bëggoon damay dégg ngeen di wax saydul istigfaar mooy lan ma ne ko saydul istigfaar moom mooy prince su ñaan yi su ñaan yi dajaloon bu ca gën gën caa baax gën caa wér ëpp te yaakaar mooy saydul istigfaar mu ne dama koo bëgg a mokkal nan nga may dimbalee ma ne ko taalal sa téléphone mu taal téléphone am ma waxal ko ko ndeysaan bi ma paree mi ngi may xool di jooy ne oustaz wallahi yaa ngi ñuy defal loo xam ni sa fay yàlla rek moo ko am kon yàlla nañu yàlla boole yiw xale yu góor yi maa ngi leen di fàttali nii ndaw day génn àdduna mag day génn àdduna bis bu nekk borom bi dafay sàkku ci ñun ñu tuub kon nañu tuub ci suñuy bàkkaar delloo la ñu yoreeloo nit ñi waaye ñu góorgóorlu te xam ni koor weer la woo xam ni bu la ko football tee def bu la ko entraînement tee def bu la ko contact tee def soo dee mbër même boo dee entraîné bu mu la tax a bàyyi koor soo dee def armation bu mu la tax a bàyyi soo dee liggéey liggéey bu gis bu mu la tax a bàyyi koor soo dee liggéey liggéey bu oyof bu mu la tax a bàyyi koor xeexal ak sa bakkan xeexal ak seytaane ngir nga jege sa borom te loolu li la ciy dimbale moo ngay julli di jéggul yàlla borom bi ne wasjud waqtarib sujootal nga jege sa borom wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh